Assalamu mbooloo mi Mangi nuyu wa Sénégal di nuyu wa diaspora di jiital nuyu bi sunu kilifa diine yak aada di feddali kóllëre bi eh, di lendi wax ne man eh, docteur Rose Wardini candidate élection présidentielle 2024 depuis bi nga eh, filtre parrainage bi jàll ba nga Eh, eh, nekk nañ candidat coow li dafa jugoon ci sunu wàllu parenage ñëpp di naan kii fan la jaar ba am parrainage kii fu mu jëlee parrainage dama leen bëggoon a fàttali ne docteur Rose Wardini mu nekk seen kanam dafa juddoo Sénégal màggee Sénégal am fi lépp depuis ñaar fukki at ak juróom mu nekk ci gox-goxaan yi di taxawu Sénégalais yi di liggéey pour sénégalais yi te musuta am benn post gouvernement wala benn post boo xam ne war na mun a tax ñuy wax ñàkkam ak alalam la jël jox sénégalais yëpp di ci liggéey depuis ñaar fukki at ak juróom donc kooku mel noonu defe naa parrainage war ko tër coow li bëri woon na torop nag ñuy waxati beneen coow ñëwati muy affaire double nationalité loolu nag duma ci xuus bu baax parce que la ma waroon def yëpp def naa ko te violé ma benn charte constitution bi ndax la ma waroon def ba ma koy def def naa ko déposé ko fa ma ko war a def defe naa ne fii ak diir yu gàtt da ngeen ci am lu leer ñun nag Sénégal nouveau dañoo yàgg xeex ci li nga xam ne mooy paix ak stabilité sunu réew mi ndegam coow li bëri na nag bëri na torop ñun dañoo jël benn dogal moi gannaaw si tay si ma suma candidature ci élection yi ndax jamm la ñu ak élection yo xamné dafa lalu ci jamm ku ñu ko mu jité réew ñu liggéey Sénégal ndax mérité vraiment fitna fitna mérité wuñ ko may bu baax ñepp ñi nga parce que lui dañ ko warone def ndax suñu intérêt dañ koy jël teg félé jital intérêt réwmi mi bu dee coow dafa nar am ma suma intérêt teg ko ne jital intérêt réwmi élection yi am ci jàmm ak salam coow li fay ki wara a gagné té élection yi nak ñu fexé ba ñu def ko fi ak le 2 avril ndax nit ñi mëna am jàmm dem ci ay élection jàmm ki war a gañe gañe ñu jàppale ko maa ngi leen di sant di leen di gërëm di ñaan yàlla jàmm wàcc ci Sénégal di ñaan yàlla yàlla musal ñu ci fitna jërëjëf asalaamaaleykum. Roco 7 TV l'information à temps réel.